querer.

yàlla ma def mooy nit boo xamante ni bëgguma di gis ku am problème bon muy lu ma neex ah. eh, foofu daal laa mën a yem daal ah. <laughs> waaw. mais man dafa lu ma marqué man buur damay gis souvent euh, bu nit amee problème euh, bu ñu dugalee vidéo am ci internet dañuy gis même dans les commentaires nit ñi dañ naan mais na ko Wally Seck dimbali.

no demeewul noonu c'est que Wally moom li may la wax rek euh, man dama jàpp suñ boroom borom moo namoon rek euh, wane ku ñuy wax Wally Seck mu jaarale ko à la musique foofu daal laa ko mën a tënkee yàlla ma bëggoon wane mais mu jaarale ko ci musique. Euh, jamono bi ku ne xam na ni que heure bi Wally fans yi takku nañu ah. Euh, corona oblige waaye ku ne ay contrat date yow sa date après pandémie c'est à revoir il faut discuter ci ak promoteur, comment on peut faire hein, mais quoi qu'il puisse être man perdant parce que yow waykat bi yaay perdant bi parce que ay date la yo xamanteni ni di nga ko jouer wat donc ala kulli àll ni ma ko mën a waxee année blanche nañu rek ñun presque waaw donc ñun ñooy perdant mais ñu santé ko yalla aussi ya ah. hmm. mars ba tey Wally tëggul gelé activité am yëpp dematul tu benn tournée té dafa melni que wali légui la gëna a bari xaalis macha allah kaar quoi car parce que légui la jëf ci gëna a takku. non. gëj naa joué mais bari xaalis moom dafa dafa rëy quoi. Hmm. ah c'est dafa rëy ah maa ngi sant yàlla nag waaw xam nga bu ñu jaawalee nekk ko joxe ak am ko bu ñu jaawalee mukk nekk ko joxe ak am ko man bi may ñëw indiwuma dara bu may demit duma ma yóbbu dara yàlla na yéex donc euh, lu ma mënti yor j'ai les sur terre.

waaw xam nga boo nee jeune talent man duma neex sax samay nawle lañu samay rakk lañu ñi ñi bokk métier bi yàlla def nag may seen mag teguma ko sama bopp ñoom it tegu teguñu ko seen bopp eh, ma nangu ko xam ni may seen mag ñu nekk ci période pandémie xale yi gore lool nag ñoom ñëpp kenn yuuxu ci kenn onkowu ci ñu ngi toog jàpp seen ñàmbur te ñoom ku ci nekk ci ñoom am nga askan boo xamante ni yow la ñu yaakaar ma yaakaar ni rek su ma yàlla dimbalee ba ma mën a am as tuut ku ci nekk rek cof ci sama wërsëg dafay gën mais c'est pas dama leen di xëcc suma wet parce que tamit ah nit ki boo ko jiitoo da nga koy wan la bon exemple ah

boo demee wàcc ko fa nga ne ko wàll mën ko jox nga ñibbi ku ci nekk yaa filmé sa bopp donc defuma ko pour ñu wax ko waaye ñoom ñoom seen mbaaxu bopp rek wax ko amul kenn ku ma ci nekk kaay jël si ko dama lay woo ne la dañ lay woon ne la man sax duma la woo dañ lay woon ne la ah Wally moo ñu yónni ci yow fan nga nekk ñu indil la ko wala fan nga bëgg ñu yóbbu ko donc kooku ki koy def ah je pense que da ko def ak xol bu sedd waaw loolu moo ci am solo. Euh, Wally 2016 dañ la jël sur Dakaractu 2016 euh, nekkoon benn at bu euh, benn année bu sombre ci yow bu ñu rappelé émission boobu keroog Wally wax na ci ba tur ay xéwal ginnaaw 2016 d' accord moo la gënoon metti ci année yi nga jot a dund Wally ban année moo ko gën a neex à part 2016. ren. Hmm. pour ren. tabaski naa tabaski bu neex. fekkee ko ci jàmm yàlla defal ma jàmm bàyyi ma fi maag samay njaboot ma fekkee ko tabaski bi bokk na ci tabaski yi mu daan yi ma gën a neex ku ne xam na ni man tabaski suma ma ba pare damay turi xewal rek lu tax lu tax mu lay marqué ba foofu waaw tabaski nag moom ah, sama ñi xam dañuy dañuy dañoo naan yow moom ni xëy na li nga tudd Ibrahima moo tax tabaski moom dama koy jële dënn quoi. loolu xam nga nit kii li muy def di ci si yëg boppam te di ci yokk loolu waay. Mm-hmm. du ko boole ak leneen. Mm-hmm. tabaski moom dama ciy màgg chaque tabaski. Mm-hmm. waaye bu ñu lewatalee ba pare. damay toog sama ruq rek di tuuri xéwal rek waaye rek moom daluma. ren da nga dëgër quoi. waaw ren daluma bokk na ci tabaski daal yi ma gën a neex. tabaski bi vraiment. yow gars yi di jooy tabaski bu metti Covid 19 bi nit ñi amuñu xaalis borom kër yi gis na kër gis kër goo xam dañuy cotiser ay xar yow nga ni waale tabaski bi moo la gën a neex. waaw parce que l'argent ne fait pas le bonheur. ñoom bu ñu jooyee am nañ ci droit waaye man am naa droit parce que fekkee ko rek doy na sant waxuma la sax tal ko waaye fekkee ko doy na sant waaw su ma laaj nga tal ko ah ñun programme wu ñu suñu dara yàlla ci programme suñu borom la ñuy doxee te jàmm bu ne boo xëyee war nga sant yàlla bul xool mukk ci yow ñi nga tànn ñi la tànn da ngay xool ci ñi nga tan ah et puis quoi qu'on puisse dire Sénégal am na jàmm am na social bour tay bu yéré 100 francs dina xol nu mu bokkeeg sélé c'est c'est très très important wa dëkk yi ko amul nu ñu war def ah tabaski bi ren Sénégal yépp contane nañu neexna na temps bi neexna na ah fi déggoo fi dara lu ñaaw mm-hmm. ouais lepp rafet na waaw lepp eh, rafet na waaw jamono yi la ci ginaaw nga ñak un être cher Euh, besu tay bi sûrement warna dem dem ci xel yi muy Chérif Abdourahmane Fall ci lal euh ñak na sama wajur sama serigne waye tamit sama xarit donc makoy ñaanal ndaysan dem bu ci fajar rek yu mu julé dafa melni dañ mo doon sama ñi ma doon àndal wala ñi ma xamante ni xamante woon nag ñoom fii ci dunia jamono si ñu ngi barsaax yàlla xam na ko mooy ñaanal ñëpp waaye tamit ah Zula suma rak mm-hmm. heure bi daaw la génn àdduna moom tamit maa ngi koy ñaanal fi nekk gënal ko foofu eh, buur àdduna amul solo Hein? teraanga gi yëre yu rafet yi c'est bien hmm, c'est bien mais l'intérieur c'est plus important maanaam nit ki c'est intérieur mo ëpp solo mo wara gëna rafet waaw après nak bu la yalla maye bu loolu lo ci tek rek bénéfice la. Hmm. lo ci tek rek bénéfice la wala jamono yele ci ginaaw yëkëti fi teranga ju rëy jagleel ko Cheikh Mouhamadoul muntaka Euh, muy benn limousine limousine boobu créé polémique yu bari te wàll di taalibe am droit ci yëkkati addiya jox Cheikh Mamadou Mountakha waaw loolu de maa ngi koy sant yàlla bu baax ba mu amee polémique ndax mënoon naa gën a neex ma yóbbu ko sëñ bi jël almet kos ko bu deewee naatee su ma ko amee dama koy yóbbu sëñ Tuubaa laa ko jox man may xale ah, jamono ju naqari ji yàlla dimbali ma ba ma mën a teg ci loxo ndaamar di ko jox sëñ Bamba ah man dama war a lijjanti fañ ko war a def ak fuñ ko warul def lu ci sama yoon lan moo ci sama ngaññi bu ko mooy xool mu taal ko maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla yàggal taxawaayam bu weesoo Ahmadou bi mu fi toogal bu weesoo taalibe bi bu weesoo bu weesoo sëñ Bamba bi muy doxee dafa oyof lool dafa bax sooy wax ak mom do bëgg sax ñibi mais daw bi nga toogee mom da nga tour ay xewal te waaw. waaw daw la koy ñëk gis mu jël loxom bu sel bi tek ko suma bopp bi mu wax ma dégg lu mu wax na ngeen euh, góorgóorlu te xam ne liggéey jaamu yàlla la waye bu leen faté jaamu yalla mukk mhm. waaw fek yéen ngi jaamu yalla ci li ngeen ne. suñu xel mën naa dal xam nga nag kilifa kenn du ko waxal lu mu waxul moom lii moo ko wax. lii moo ko wax esprit de grandeur bi Wally di demee léegi ci côté mentalité côté communication ba ci doxalin qu'est-ce qui se passe maturité moo koy expliquer wala dafa am ñu encadré Wally ba di ko teg ci yoon. waaw xam nga maturité nit ki moom bu ko amee moom du ko sentir nit ñi ñoo koy sentir mm-hmm. ah et. nit ñi ñoy gis maturité mais man do koy yëg sax yow yow ñew nit ki donc alhamdoulillah bi nga xamanteni nit ñi ñu koy yëg ci man mm-hmm. ah mm-hmm. alhamdoulillah ba ñu koy ah, ñu koy setlu mais je pense que man wali xaw ma ne laa ko mën expliquer ah, ci projet suñu borom rek lay dox. Wally léegi man dama gis ci moom léegi daf mel ni benn benn benn benn arabisant léegi bi communiqué euh, damay sentir ci sa jëmm benn aspect euh, religieux bu xaw a am doole actuellement même en s'exprimant même en marchant dama gis benn ndaw léegi buy gën a daw di sëstu ci boromam. waaw mais dafa am leneen lu gën a for borom bi dama lay laaj. non da nga gént dee da nga jommi da nga wala. non dee j'ai pas peur de la mort moi pourquoi parce que dama koy def damay ñaan suy ñëw yàlla na ma fekk ci lu neex borom bi j'ai pas peur de la mort moi parce que dama koy def et ci ma conscience bu tranquille je suis qui avec ma conscience xam naa ni euh, saabu du football, je mm-hmm. waaye que c'est ni moom ah moom um, sama xarit la sagal na ma de ah, te eh, nit am na la suñu borom di def dalay lay ni sa yaakaar du tas fële waaye man wóor na ma ni incha allah yàlla na yéex dinaa bokk ci ñi gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam à part musique Wally à d'autres projets yoo xamante ne que ay business si boppam la ci biir réew mi projet moom nit ki ba keroog ngay ñu lay rot ci bàmmeel nit da koy am ndax projet c'est c'est c'est c'est ah nit ki mën na am projet te du am nu mu ko ah, taxawalee donc tant que yaa yàlla ñu nga bàyyi sa xel rek sa sa xel mi ay projet rek moo ci nekk projet yi bëri na euh, li ma bëgg def bëri na maa ngi ciy ñaan yàlla na ko yàlla mottali Euh, bu lépp amul it euh, moitié bi sotti loolu moo ci am solo waaw mais buur daal li ma la mën a xamal mooy jaam bu ne boo xëyee war nga sant yàlla mais personnellement man man Wally Seck man waxuma la sant man dama war a di santati di di di di di di waxuma sant waaye di di pooj sax waaw waaw di pooj waaw vraiment en tant que créateur d'emploi est-ce que protéger l'état est là pour euh, tout un chacun hein, l'état est là pour euh, couvrir protéger les Sénégalais et je pense que nous devons mais euh, en tant que un acteur de développement en tant que man sénégalais hein, un porteur de voix aussi nous euh, ne mais pas tout le temps mais c'est ci état un homme woo ko ma jàppale ma jël bi bi je pense que. Euh, suma soxla woon léegi léegi président loo xamante ni tembare na dinaa dem ma xoko mais actuellement hein, li ñu soxla ci moom rek mooy mu gën a jege jeunesse bi mais man moom wax dëgg yàlla je pense que samay projet yàlla mi ngi koy mottali nank ndànk j'ai des amis yoo xamante ni ñu ngi ci état bi ay homme d'état ah ma leen di nuyu de passage du ma leen lim parce que ñoom xam nga bëgguñu ku leen ji tudd maa ngi leen di nuyu bu baax a baax.

Je mooy topp parce que nit mënul nek fi et je pense que biñ dalé and ba mak ñom mus problème Ce euh, problème je aussi mënul ñak parce que kër la problème tout le temps et euh, ma len di wax ni rek ah ñun ñom ñu sommes ñom tamit ñun lañ fi nekkal. walu ji di sa artiste fi des ko xëy toj kër gi ñu jox seen waa kër délai bu gàtt war leen a génne ci biti Sénégal gi yëpp ne bu yeggee ci nopp Wally Seck mu dimbali ko. waaw léegi euh, buur loolu c'est très très important maa ngi ñaan euh, ñu gëstu leen nu mu gën a gaawee dégg naa sama papa Iran Ndaw di ci wax il pare dañ ma ko nettali mu ngi ci def mu ngi ci def dina ci def ceeko mais xam nga man euh, ce que je comprends pas par rapport certaines personnes dañu damay gis sen sen, attitude daf may jaxal daf ma fi dal fa ñu passé man ni ngi may gisé ni télé bi sax sama kër mënu mako tal parce que internet whatsapp la ci def wala dugg instagram poster photo sama liggéey quoi duma ci dugg duma duma ko duma ko xol lu bari alors yàlla dafa dogal suma mag bunyi wakhin wax njago jidem ji dem di jala ji pikin bi mu jógee di jala ji mi ngi ma fekk ngi sol jean ak t-shirt moom da man de damay jàll ji pikin dañu am dëj ma ne ko ku gaañu mu ne ma diw ngani ma naa mana ne lan moo ko dal mu ne dafa feebaroon est-ce que doo ñëw ñu ànd ma waaw wutal lu ma sol Thierno Gadiaga suma garde corps moo daw si ñëw indil ma jàllaa bi ma jël jàllaa bi teg ko sama oto ñi ma gis bi may wàccee Pikine gis nañu bi ma wàccee après laa doo ko sol jàllaa bi donc du lu prévoir ma dem jaale ki may jàll ji xaw ma ko damay dem parce que nit nee na mën nañu ànd jaale ji ma xam ñu tiyaaba la ma ànd ak moom ma ñëw fekk fa ñoo xamante ni xam naa leen ñu jaale ba pare ñu rafetlu ko. ay nit wax ma soxla fofu biñ mako waxé waxee ñi fa toogoon dégg nañ ma may instant lañ yàlla baax wax bu àgg dafa ko moom. parce que xamna né buma ci prononcer ciy ñi dañ ko jël ñi jël nañ ko jël lu bax mais ñeneen ñi xam nga les prédateurs de Wali Balago Seck ils seront jamais. waaw ñom duñu bék bég parce que non lañu ñu mel loolu moo leen seen problème mm-hmm. donc euh, biñ ma waxé soxla bi. mu leer ma ni man même suma ko mënul ci sama koppar am naa link bi am naa ñit yoo xamante ne ma leen woowee ne leen def leen ñu def te ñoom seen kàddu agul foofu man leen dinaa ko def mais dinaa ko def bi indi na polémique ñi naan waaw pourquoi faju ñu ko woon man dama xam ku feebar yëguma ku feebar et puis c'est pas évident que ku feebar dama ko war a faj ñu waxtaan dëgg neex yàlla am yéene milliard ak ku feebar ak kuy war a dee kenn mënu ci dara boo ñëwoon teg branche nit nii fii suñu borom ne àla kulli xaal kii róom day dem tey nga ñëw teg milliard ñu docteur yi gën a ay ngeen compte une deux trois branché day faatu waaye amaana kooku faatu tey wërsëgam ci lay doog tàmbale man ni problème ma déggee waaw wërsëgam ci lay doog a tàmbale yàlla waxoon na ni Jules bu faataw ba pare la waajuram bu jigéen di doog am kër waaw. te woon na ko waxoon na ko def na ko. c'est évident c'est évident donc lépp lu may euh, des fois da ngay gis sax kuy bëgg dara nga yéene ko bëgg ko def te soo ko defee man waxuma ko binduma ko ñoom seen bopp ñoo génn wax ko mais après day indi coow yoo xamante ni polémique yoo xamante ni. dafay doy waar. mais yaa ngi ñaan waaw maa ngi ñaan ñu dimbali ko ah, bu ma ci waroon def dara it dinaa xool nuñ ko contourner def ko te ñu xam ni wale ko def. waaye lu sa dernier mot ah sa dernier mot. sama dernier mot waaw maa ngi. <laughs> mais def naa julli gi tey neex na ko à part jooy yeeg loolu soxna saaf na fii marmé fii affaire de géwél quoi. waaw madame def na ba mu baax waaw. def na ba mu baax fi ngeen toog nii tey yàlla dogal na bi yàlla baaxalee ba pare ndam ma taxawal ko moom moo suivre chantier bi daanaka moo ko tabax moo fi doon nekk man damay toog ay un mois duma fi doon ñëw. kër gi fii waaw euh, pont bi ñu fi jënd ci loxoom la jaar moo ko def ba mu àgg nii gannaaw. bi ouvrier yi liggéey ba pare maa ngi koy sant bu baax. waaw xale bu baax la ah jabar ju baax la jabar ju ah am vision la jabar ju yaru la vraiment euh, góor bu ne ñaan nga yàlla am jabar ju mel ni moom waaw ci euh, defar na ba mu baax tey xam nga yaatal nañ ñëpp li man li ma ci gën a neex mooy yaatal bi mhm. parce que yàlla ma natoo ma am ay ñoo xamante ni dañ ma bëgg te yàlla tax mhm. bu ñu toggee gis ñu ma sax feebar nañu.

ñi lay xaar ci suuf dafa <laughs> bëri ah foo jaar. waaw boobu man man tey ba 9 di du matin maa ngi maa ngi yëngu maire yi. maire yi ci suuf. waaw gisoo sànq laa yeewu dama 4 heures laa tëdd. ba 9 heures matin demuñu maa ngi ñoom ñu ngi fexe nu ñu lijjantee problème yi. waaw ñoom sumay waay lañu. donc miin naa ko ak ñoom mais ma leen di wax rek euh, tuuti aussi ñoom tamit ah ñu may gëstu. Ah, li may jàbbante gendarmerie ci porte plainte bari na trop. yow Waly ku lay porte plainte. waaw ah, dëkkandoo yi. Mhm. te fii ñëw nga fi déggoo fi musique bu tàkk. Mhm. bu foor bu déranger kenn maanaam kër gi leen di déranger du ci kër gi. Mhm. li leen déranger mooy maire yi toog ci buntu kër gi di xaar Waly te ñoom tamit yaakaar rek bu fi indi ma leen di ñaan bu ñu ma soxla soxlatee. ñu dem bureau ba ndax man sonn naa ci jawante bi police dañ lay convoquer convoquer tout temps bëggoo leen janni bëggoo leen wax lu ñaaw bëggoo leen waaw te dekk yi tamit seen deug lañu ne ma ngi len di balu ak di leen ñaanal jamm di leen wax ni man teggumako ko sama bopp waxuma kenn ñewul waye tamit euh dañ fi yaakar rek motax ñi ñew ma leen di ñaan rek buñu ma soxlaatee defar naa bureau spécial fi mako mako sanci ah ci fii ci à côté de njagoro nañ ma fay xaar waaye koñ bi dama dëkk ay samay nawle te ñu yaru la ñu nag ñu ñu baax vraiment ni ñeen di déranger gënalu ma man nangu naa ko ma mais ñoom nag vraiment te dëkkandoo dafa fort dañu war a am jàmm vraiment. <laughs>